ba tey ñu daal leen di toppal mbiru kii di Mama Kundung moom moomee ne woon dafa daal di nekk en wante daal di organiser kidnapping boobee nag jamono ji daal nañuy teg ay daan ci ndoddam lu toll ci six mois de prison sans sursis buñ sukkandikoo ci wàllu observateur bi fësala boobu xibaar mu ngi xam ne ne kookee di Mama Kundung moom ak ñamu tegandooloon boobule di daal nañ leen di jugé muy kii di Umu Ndaw Maam Jaaxa Seen ak kii di Amadou Wele dana leen jugé ci li nga xamante ne si nekk moo di association de malfaiteurs faux et usage de faux menace de mort et voie des flics à la barre du tribunal ci li nga xamante ne si nekk moo di flagrant délit foofee ca Pikine Guédiawaye ni ki démb